doo nekk un homme politique empoweré ak le pouvoir say nit ñu jàpp leen ay garde du police nekk ak nekk jàpp leen 10 jours bàyyi leen nga jëlaat ñëpp 10 personne mais ñëpp mënuñu dëgër. dañ leen infiltrer. non mais am na ñoo xamante ni par exemple da nga jàpp 10 personne kenn ki am problème yaayam feebar buggul des prison parce que sa mère sa. Euh, il faut couper il faut couper ton mais dama ko dama ko est-ce que taaloo ko may mun a xoolal est-ce que taaloo ko entre temps xoolal xoolal 10 nga jàpp am na ko xam te day toog yaayam dafay feebar bëggul yaayam bëggul yaayam yëg ni ne jàpp nañ ko kii jabaram mi ngi nekk en état de grossesse kii dafa feebar dafay jël ay garab c'est de gens qui sont moralement Ils sont fragiles. fragiles tu leur un deal ils l'acceptent nga libéré bu fekkoon ak guerre la un un un soldat qui a été qui a été dans bu dellu see gars yi dañ lay dañ lay dañ lay éliminer wala ñu dàq la ci ci kii bi mais duñ la jëlaat Ousmane ñëpp la jëlaat ànd ak ñoom fotow ci saalam tëdd mu sa ce gars il n'a rien compris